ñu mën cee lim jukki ci ñenn ñu ci mel ni Gora Aaj Modou Fall euh, monsieur Lamine Sall monsieur Makhtar mbay mi ci sama wet kii nekk ci sama côté di Moustapha Fall Adesmat ak Seydina Issa jóob Diop ne senegal yëpp xam nañ ko dañoo jot ndigal ci sëñ bi ñu ne bu nu sañoon Touba am ay masque ci màggal gi ngir mbas mi waa daanu ci suñu kaw nekkat ñoom bu nu sanoon daal taalibe yi ñu am ay nangami masque ba tudd ab lim ci juróomi million yi masque ci kaw loolu naam xat na waaye ci lañu dajale téeméeri junniy masque ak fukki junniy masque ak juróom indil ko jébbal ko Serigne Bassirou Abdou Khadre ci ndigalu Serigne Touba loolu mooy li nga xam ne moo ñu indi woon fii te masque yi ñu indi ñun du masque yoo xam ne da nga koy sol di ko simmi di ko sànni masque loolu la tubaab di woowee masque réutilisable maanaam soo ko solee ba ñibbi sa kër da koy fóot ba mu set bu setee nga xëyaat sol ko mën nga koo sol ba ci 60 jour donc mën ngaa jënd nag yeneen masque yi ñuy woowee girosico te doonu ko te yooyu même bu doon girosico ñaari waxtu rek nga ko mën a sol boo ko solee ñaari waxtu da nga koo war a sànni naam yàqum xaalis la beneen bi mooy day yokk mbalit ci dëkk bi yi ñu indi ñun tailleur yi koy ñaw ay doomi Sénégal lañ képp ku yor atelier bi mën na cee ñaw am ci lu mu yóbbu këram ba noppi aar sa bopp aar sénégalais yi loolu moo doon suñuy tànk tey waaw bi bi mbas mi ñëwee amoon nañ njàqaare lool amoon nañ njàqaare waaye président de la république dane ci ci commencement bi téere dañoo commencé woon di ak ak seen xarañ macha allah créativité sénégalais ñu commencé di defar ay masques di ko may suñuy mbokk ak suñuy xarit ak di ko yóbbu ci ministère yi président ne léegi na téere yi ñëw 10 millions de masques jaarale ko ci DER ñuy gërëm le le délégué général Pape Amadou Sarr bu DER. ndax bi ñu jaaralee ci moom loolu lu toll 3 milliards la teg na téere bu ñëw téere bu indi masque ñu fay la sa xaalis. masque yooyu ñu jël ko jox ko PENA PENA yor wàllum séddale gi PENA mooy pharmacie nationale d' approvisionnement mais DER moom liggéey bu muc ayib lañ ci def moo tax téer yi jafe-jafe yi ñu waroon a am ci mbas mi amuñu ko ndax jël na lu mat ba ci ñaari weer ba ñetti weer nga waroon a toog liggéeyoo ngay liggéey guddeeg bëccëg di ñawi masque te saa yi boo livré DER ci ñaari fan nga jot sa xaalis vraiment loolu tamit dañ ci sant le président dara bi m dañ ciy sant DER waaw loolu loolu moo taxoon mbas mi bi mu ñëwee wax dëgg yàlla téer yu ci bëree bëri xawoon nañ ci jafe-jafe bi ñu ci waroon dund dunduñu ko ci. waaw xam nga état moom jàpp naa ne li xew xam na ko ñun ñu ngi koy déglu rek fu mu ñu ci woo rek ñu wuy suñu mbébét ci kanam mooy lépp loo xam ne doomi Sénégal nga koy nga koy sol doomi Sénégal ñaw ko loolu mooy suñu mbébét mooy suñu objectif waaw moom lañuy ñuy promouvoir c'est-à-dire xam nga fii Sénégal muy ba commencé ko ci tenue élève école yi li ñuy sol xale yi commencé ko ci yéen journalistes yi commencé ko ci fonctionnaire képp ku sol ci Sénégal rek li ngay sol doomu Sénégal mun na la ko ñawal te doo génn réew. non xam nga comme ñun du ñu wax état na bàyyi li tax mooy dañ nekk ci marché boo xamante ni marché mondial la mais lépp loo xam ne ñu ngi koy def nañu favoriser doomu réew mi nañ ci favoriser doomu réew mi bu baax a baax a baax a baax ndax même ay réew yu am na ci ay réew yu mel ni Turquie tey jii. boo fa demee tey jii nga nekk ab étranger bëgg fa benn magasin mën ngaa fay ba un million boo dëkkee ci réew mi ñu la cent mille ngay fay maanaam faaw ñu gën ñoo dooleel ban mën a xeex nga xam ne bépp bagage bu fi ñëwati ci wàllu yére ñun suñuy bagage dina ko nëbb ci côté bi ñu war a dooleele mooy renforce ginnaaw ñun yàlla may nañu xarañte ci liggéey bi li ñu mën a dooleele même importation boobu ngay wax ñu xool ñu xool ko ñu koy xool di ko vérifier importation bi dañ koy xool di ko vérifier parce que ñun comme dañoo bokk UEMOA bokk ci yeneen i mun ñoo tëb a tëb ne lii nañ ko arrêté te kii mais li leer ba leer daal mooy lépp lu jëm ci wàllum textile moom buñ ci état bi jàppale ñu koy defar ci biir réew mi ñun loolu lañ ko ñaan muy commande état bi muy yeneen i commande li ñu bëgg suñu objectif mooy am ci milieu secteur tailleur bi ñu nekk ñu am ci lu toll ci benn million ci ay emploi mbaa lu ko ñu créer ko si ndax am na luñ ci créer ba pare mais ñu gën ko yokk gën ko valoriser di di di mu gën ñoo bàyyi xel pour ñu mën a gën a organiser pour mën a def loolu. tantôt man la Moustapha Fall président ADESMAT association des maîtres du Sénégal. yéen uh-huh. ñu ñëwoon fi tey rek jébbal si woon euh, Cheikh Bass ci déglu woon ci appel bi nga xam ne sëñ bi moo ko wotoon ci màggal gi waxoon ni dafa soxla woon lu mu lu mu néew na 5 millions de masques yoo xam ne soxla na ko ci màggal Touba bi. Euh, ñu war ko ñëw taxaw ñun ñu nekk ay taalib nekk ay patriote aussi nekk ay nit ci dëkk bi comprendre ñu xalaat ñu war nañ mën a defal loolu wala lu ko ëpp sëñ bi ci lañ boole ñu ñëpp ak boole ak waa collectif bi nga xamante ni ñoo ñoo nekk fii Sénégal euh, collectif des tailleurs maire tailleur ñu liggéey nañu cent quatorze mille masques yoo xamante ne liggéey nañ ko ci ci ci ci ci ci diir bu gàtt indi ko jéebal ko sëñ bi jox ko ko te def ko addiyee Serigne Touba. geste geste bi ngeen def fii ci Touba. Mhm. suñu moom bëri na parce que ñun dañu nekk ay ay nit ci nekk ci dëkk bi tamit euh, nekk ay ay sénégalais nekk ay africain taxi donc li ñu bëgg ñun suñu liggéey lépp loo xamante ne nit ñi ñu ngi koy jéggaane ci bitim réew ñu fekk si ñu fii ci dëkk bi ñu ñu liggéey ko doomu réew bi liggéey ko. parce que boo xoolee masque yi ñu liggéey fii nekkul masque yoo xam ni ko monsieur Sow waxee léegi masque yoo xam da ngay takk sànni azetable non non da jël fóot ko mën nga du nekk ak weer nga liggéey doomu réew mi ñoo ko liggéey donc loolu luy dugaat ci biir dëkk bi la donc euh, Sénégal lépp loo xamante lu mu soxla woon ci wàllu masque wala dara que ñun li nga xam ne côté bi ñu moom la ñu mënee mooy wàllu masque yi la ci ba lépp loo xamante ni soxla lañ ko ci war nañ ko a def. Uh-huh. moom parfois na parce que nekk di liggéey ci benn côté mais am na leneen loo xamante dañuy ñëw nekk ay gàllankoor ñun que li nga xamante ni moom la ñu a comme masque yi rek benn dèjà nekk dañ di di ci liggéey parce que bi président taxawee soxla 10 millions de masques ci dëkk bi boobu kenn mënul importer ñu ñoo taxaw defar lépp fii Sénégal fi lañ ko defaree mais bi ñu demee ba ubbiwaat frontières yi aussi tamit gis nañ ni ku nekk yaa ngi importer waat di ko indiwaat ci biir dëkk bi ñu a laal suñu liggéey tuuti dinañu laal bu baax a baax a baax côté boobu ñu ngi santaat bu baax parce que bi mu soxlawee woon na artisans yi artisans yi ñëw nañ demaatee nag ba nga xamante ni ubbiwaat nañ bunt yi dañu war a ñu war ñu gën a mën a protéger waat ñun artisans yi xam ne ñoo nekk fii ci biir dëkk bi daal